si leen maa ngi woote ci diine tama di lislaam bi fi doon aw dundin jullit wi si leen maa ngi woote ci diine tama di lislaam bi fi doon aw dundin bismillahi rahmaani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع مبقي توبو إسلام تي في سن إميسون زاد المسلم مي يبل جلت دلسنا دلن جغلل emision yu am solo yu aju si wàlla aj muy aji màkka nga xam ne période bi ñu nekk ñu koy waajal ñu bëggoon jagleel émission yi di ñëw lu jëm ci wàlla aji màkk ngir mu nekk yóbbal si kii aji màkk mbokk yi lan mooy aj aj suñ ko waxee ci làmmiñu arab moom mooy alqasdu mooy jublu ngir ne kii dem màkka dafa jublu ngir dem màkka aji ji defi jaamu yàlla kon jubluwaayam dëgg dëgg dëgg moom mooy dem joxe ji lii di jaamu yàlla aj lool moo tax ci làmmiñu arab ñuy wax ju moom mooy alxas kon kii dem di waajam dem màkk moom la ñuy tuddee alxaaju bu nekkee ku jigéen ñu ne ja donte nag aada dafa baaxoo ki dem makka ba ñew ñu alaaji wala aja waye ki waaja dem makka di jublu dem koku si lamiñu arab lañuy la al hajj moy al alqasid lan moy aj si njàngale l'islam borom xam-xamu Islami, yalna yalla na yàlla kontaan si définir nañ li di aj jox ko ay définition yu bari yenn yi day dellu si ka koy définir day xool rek si ngir bu mu aju nu ñu jàngalee aj am si yoo xam ne kii définir aj dafay xool rek li mu teewlu si ay texte yi ñëw si arquran ak sunna ak dajale waxu borom xamam yi xamle ko lii aj yow mi nga xam ne yow yay waaja aji aj daal yenn borom xam yi nee nañ mooy attaabudu lillahi azza wa jalla bi qasdi makkata li adaa il manasiki ma jaa fi sunnati rasulillahi sallallahu wa alihi wa sallam yenn borom xam ne nee nañ aj moom mooy jaamu yàlla la loolu liñ si déggee yow mi aji màkka yëgal ne li ngay defi jaamu yàlla la kon nanga ko sellalal yàlla ngir mu baax kon jaamu yàlla la boo xam ne dañ koy defee fële di màkka bi qasdi di màkka mooy nga jublu makka ngir jaamu ji yàlla subhaanahu wa taala li nga si déggee it mooy aj kenn mënu ko defee feneen fu bokkul ak màkka màkka dëkk la boo xam ne mu ngi nële si dëkk bale di arabi saudiya kon foofu lañuy ñuy ajee kon Makka dong lañuy ñuy ajee même Madina dinañ si ñëw Madina ñu bari ñi fay dem dañ fay dem ngir ziyaara ji jàq yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye amul benn relation ak lii di aj nit mën na aji te du dem Madina mën na aji it dem Màkk ba noppi door a dem euh, Madina wala mu jiitee Madina walla sa mu boole koog aj bi kon jublu Màkk ngir jaamu yàlla lan moo tax ngay dem Màkk li adaa il manasik ngir joxe li di ajmak manasik fi ambana na ñetti aji am muy ifrad ak qiran ak tamattu ifrad moy tukki bo xamne dang ko beral aj da nga dem pour aj so aje nga ñibisi lol moy ifrad nga xamne umra du sirah loolu la boroom xam-xam yi tuddee ifraat beneen bi mooy xeraan mooy nit ki dafa tukki lënkale lii di aj ak umra dafa dem ngir umra ji ak ajaale ñaari la boole walla mu umra gannaaw loolu mu aj noo ko tuddee rekk loolu xeet la ci wàlla xeraan te kooku ren di gàtt tamattu moom mooy jiital umra tukki dem umra ji toog ba huitième jour ci tabaski nga armalaat aj loolu la ñu tuddee tamattu kon dangay ngay njëkk umra gannaaw loolu huitième jour ba nga aj kon yooyu mooy yóbbu kii aji kii aji day dem ngir joxe ji ifraat wala qiraan wala tamatto ngir ne ñetti aj yooyu munu ko defandoo si benn at walla si benn tukki bi benn lay def moo ko tax a jóg mu def ko mu des léegi nan la koy defee da koy defee ala ma في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم si anam bi aj ñëwee si njàngale yonente bi alayhi salaatu wassalaam ngir ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam bi yàlla faratalee si moom aj ak xeetam dafa yónnee at bi muy aj ñu yëgle ko ñu bari yégle ajam mu ne képp ku fas yéene aji ci at bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi aji nañu tase ji màkk mbooloo bu bare bari génn mu jiite leen wal leen ni ñuy ajee li ko tàmbale ci bi ñuy armal ba aj bi jeex bi mu ajee ba noppi منلن خذو عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا مي حديث بو بقدو بحمن جابر بن عبد الله رضي الله عنه موكو نتلي سي صحيح مسلم من جليلن سمن سن اجين ما نم نين دي أجي نين كو جلي سمن كن فو نجان أجي ba xam ni yonante bi alayhi wa salam jangale aj nga aje nonu ngir ne bepp aj bo xamne nit ki def nako to te dëppoowul ak bi yonante bi alayhi wa salam jangale na xamne ne lool du aj si lislaam kon faw nga jang nan la defé ifrat nan la defé qiran nan la defé tamatto nga tan ci ben aje noonu ngir yàlla ànd ak noonu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ajul ñetti aj benn aj dong la aj si dundam te bi muy dem dafa jiitaloon lii di ay gàtt loolu moo taxoon mu def aj bii di xiraan donte nag gannaaw loolu digle na lii di tamattoo ànd ak loolu suñu Aïcha radiallahu anha leeral na seen tukki boobu am na ñu defoon ifraat am ñu def xiraan am ñu def tamato comme ni mu ñëwee saxi muslim kon suma ma lan mooy aj jaamu yàlla la bi nit ki di def màkka si benn xeet si xeet aj yi di ñett ifraat walla xiraan walla tamato defee ko si ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale yenn borom xam yi noonu la ñu xamle na borom xam bu mag bu nekk si ngir imam Malik ñu koy tuddee dardiir si téeram boobu nga xam ne moom mooy asharhul kabir ala muxtasari xalil li dardir soo demee ñaareel tom ba page deux nee na ajjal mooy alwuquufu bi arafa والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة muhriman bi niyatil hajj ah, moom bi muy def définir li di aj da ko yóbbu rek si wàlla keno ak ponk yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk li di aj mu ne aj moom mooy kii aji day dem arafat day taxaw arafa day wër kaaba ba day daw safaak marwa armal yéene aj nee na loolu mooy aj kon faw dina dem arafa dina wër kaaba ba beneen bi it dina daw safaak marwa dina armal armal ngir aj beneen bi it yenn borom xamee ñu ne aj daal mooy alqasdu ila al bayt alxarami bi sharaita maxsuusa wa fi ayaamin maxsuusin mooy jublu néegi yàlla ba muy kaaba ba te matal charte aj matal aussi lii di ponki aj mbokk yi gannaaw bi ñu xamle aj suñu tënkee foofu kon ñetti mbira ngi ni yow mi aji war nga ko laaj sa bopp si définition bu ñëkk bi mooy fi ñu waxee attaabudu lillahi bi qasdi makkata li adaa il manasik ala ma jaa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy fallaay jëm loolu question la boo wara laaj sa bopp lan laa fay defi nan laa koy defee loolu moo ëmb définition boobu fan laa jëm mooy mag ayna azhabu fan laay jëm mooy màkk kon yow da nga jublu dem makka ngir jaamu ji yalla kon lepp lo xamne ne aju na si ak teggin yaag ak lañ fay téré la fa dagan lol yeb war nga ko jangalu ngay aji lan fay defi moy da ngay aji kon war nga jang lu jëm ci wala aj moy li adaa'il manasik jang xetu aji jang lan moy aj lan moy atte aj lan moy ponki aj lan moy shartay aj lan lañu téré ci ki armal nan lañi ajé ajee yep war nga jang lu jëm manasiki yépp walla bi ngay tànn ngir ajee ko nan laa koy defee loolu ñi lay yóbbu ci aj bi dinañ ànd ak yow tàmbalee ko fii di leeralal aj dinañ la wan barab bu nekk soo fa waree dem kañ nga fay dem soo fa demee it lan nga fay def ak lan nga fay wax kon yii moo tënk définition yi nga xam ne moom lañ doon gaaral mbokk yi ay ndénkaane ngi nii yu am solo yiñ lay dënk ngir mu nekk sa yóbbal yow mi topp zaadul muslim yóbbalu jullit comme da aji jëlal ndénkaane yi mu nekk ndénkaane yi ngay waaje lii di aj di ñaan nag yàlla yombalal la aj bi ndénkaane yooyu bu si jiitu mooy ixlaasul xajji lillahi azza wa jal wal bu'di ani shirki war riyaa mooy aj bi ngay aji nanga nga aji ngir jëmm yàlla dong sori lépp loo xam ne dafa aju ci bokkaale wala ngistal wala ndéggatal wala puukarew loolu bu mu tax ngay aji wala wut tur ولا سانت ولا و بنجي و الاجي ولا اجا لولو بومو تاخ nga اجي نا يالا كيسه تاخ nga اجي غير ني اجامو يالا لا تجامو يالا بروم بي سبحانه وتعالى نينا فاعبد الله مخلصا له الدين نغا جامو يالا موم دونغ سلالل كو جامو بي kon aji màkk jaamu yàlla bu mag la boo xam ne dafa ëmba jëfu xol ëmbaale it lii di alal ëmbaale it jaamu yàlla lii di ay jëf ak ay wax jaamu yàlla boo xam ne baas bi mooy xol bi nga nangu ne bii ci ponk lislaam yi la bokk dama koy defi ngir jëmm yàlla beneen biit yoon bi yépp faw nga yóbbu yóbbalu mooy alal bi ngay def ci tukki bi loolu it mu nekk alal bu lew beneen biit jëf yi ngay jëf si dem mina dem arafa dem musdalifa dem jamraya dem wëri kaaba ba daw safaak maro yooyu yëpp na nekk ngir jëmm yàlla kon yóbbal bi na nekk baasu mboolem sa yëngatu ci aj bi sori lépp loo xam ne day yàq aj ñaareel yóbbal bi mooy التوبة من جميع الذنوب والمعاصي ورد المظالم إلى أهلها موي توبال بالا غاي اجي سي مبولم بكار يو موسى ديف ييغا خام اك ييغا خامول يو ماغ ييك يو نداوي سا ديغانتك يالا نغا بالو سا بروم سبحانه وتعالى mu jéggal la mboolem bakkar yi nga def Benen bi it sa adamai. doomu adama yi ak yi dox sen digënté ñi nga bokal liggéey ñi nga bokal kër ñi nga bokal quartier ak dëkk ñi nga bokal jaq ñoñu nang leen jéggalu ñan ñu balla ak yi dox sen digënté su dang leen yoro alal nga delo leen ko fexe ba mucc ci àq yi loolu it ñu ngi la koy dénk di la dénk it at tafaqquhu fi aamali lxajji qabla safar mooy jàngal mboolem atte yu aju si walla aj lu jiite ngay tukki ngeen ne aj dafa bari atte yu si aju li ma la doon junj mooy xeetu aj bi ngay aj lol nang ko jàng mo maîtriser ko bala ngay aji benen bi moy intikhabul intixaabul maalil xalaal alal bu dagan bu lew nga aji jee ko kon alal bi ngay aji je na nek alal bu bax benen bi moy kitabatul wasiya wal ishaad alayha bindal testament bindal sa alal nu mu toll say ndénkaane nga wutal ko seede lu jiitu ngay tukki ngir ne ak tukki la tukki nit ki mën na dem ak jàmm dellu seeg jàmm yàlla na la ko yàlla defal defal ko ñépp mën nga dem it yàlla dogal li muy dogal kon loolu yëpp na nga bind sa alal sa ginnaaw sa njaboot sa yéene wutal ko seede beneen biit mooy ixtiyaaru rafiqi salih tànnal àndandoo bu baax ci sa tukki bi àndandoo bu baax mu ngi tàmbale agence bi lay yóbbu jéemal gëstu ñooñu seen capacité ci wàlla aj ak xam bi ñu xam barab ba beneen bi it mooy soo leen demee it ñi ngi leen boole it wutal àndandoo bu baax ngir boo buggee dugg si naka sudul noonu mu génne la si wala boo ci duggee it mu laaye la biir beneen biit mooy at tazawudu li safar mooy nanga wut yóbbal ngir ne it tukki la amaana xamoo fa kenn mosoo fa dem xamoo dëkk ba kon fow nga wut alal boo tukkiwee alal boobu it jéemal xam mone bi jéem ko wecceeku def ko dollar walla nga def ko lii di euro moo lay gën a yombalal bu fekkee yow yaay res sa wàll lekk yooyu yëpp nga laaj piir yi lekk yi jour bu nekk nga wutal ko budget li ngay lekk jour bi li ngay jënd nga bañ jël alal bi it di ko exposer si mbooloo di ko génne waaye na nga planifier sa wàll alal ngir ne ñu bare bari sénégalais buñ demee ba Madina gis bitiku or yeeg yu mel noonu dañuy taal seen alal mujj nag di wax ne seen alal daa réer wala dañ ko jël walla naar yee leen nax déedéet sa alal na ko saytu bu baax a baax beneen bi it sa médecin na nga waxtaan ak moom mu saytu sa wàll wër gi yaram nga baril li ngay dox di tàggatu baril it di naan ndox soo demee Madina it wala màkk nga baril di noppaleku lu baree bare kon lii si mbambasal moom mooy li leen zaadul muslim indiloon si wàlla aj ak li si aju ki àndoon ak yéen muy seen doomu ndey abu anas mohammed moustapha sarr feggoo si wàlla technique bi suñu mbokk Bokar Dia kon Islam TV seen émission Zadul Muslim mu ngi tàggo fi ba beneen jotaay hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته